pour que le président Macky Sall mène déterminé pour que la justice mène au Sénégal parce que nit yu ngeen nit yu ni ngeen nit yu xam ngeen toujours combat parce que ñun noo organisé te sànq dafa am sunu ay xarit yu nu woo ni ci njëlbeen bi ñu yegsee dafa am benn journaliste bu TFM am incident bu fi am du bëgg déglu leen ma formation fichiers de la de l'imam il faut jamais se tromper de combat Les qui est bon ci nit de combat le combat c'est avec le président Macky Sall le combat c'est avec Antoine Sous le combat c'est avec le Conseil constitutionnel donc nous, vérité mérité la mobilisation Comme me bëgg la presse ñu delloo leen njukkal tout le taxaw ñu des sur le chemin bu ñu mener vers le départ de Macky Sall et c'est ça le véritable kon maa ngi jéggalu TFM au nom des leaders di la presse di wax nañu rester sur le grand combat pour le départ de Macky Sall li ci des mooy mbéjum kanam mbéjum kanam mbéjum kanam mbéjum kanam mbéjum kanam Barthélémy Dias moo ma ko waxoon bi ñu bi ñu dàqee li sub Dakar ma ni ko toogal da ngay bokk te bokk na kon mbéj bii nga xam ni moom Macky Sall mbéj yàlla xam ni

ku leen xool ñàkk fayda da ci feeñ wala déet kon ci loolu ngeen jàpp ni élection dina am nangu ngeen ni ci condition yooyu élection dina am Macky Sall yow laay waxal nag parce que xam naa la bu baax Cheikh Tidiane Dièye mi ngi koy wax léegi 2011 fii lañu doon taxaw ak moom fii fii fii fii Barthélemy fekke na ko fii ngeen taxaw laa doon taxaw li jàkkaarloo ak moom mu yor benn mer gàtt

di sant sunu mbokk yi nekk Italie ndaxte tey le 8 juin 8 juin fële Brescia bis la bi nga xam ni ñoo ngi ko baaxee Serigne Mountakha foofu boo dee xool férié la kon sunu mbokk yi fa nekk ñëpp ñoo ngi leen di ziar di ziar Serigne bi di ziar kilifa diine yëpp di wax sunu respect bi ñu am tamit ci Cheikh Mahi Niass ci li nga xam ni def na ko keroog ci biir Afrique. ñooñu li ñu def kilifa yu baax yooyu am ñu ne mel ci biir réew mi di dem di régler ay problème ci biir adduna bi ñu leen di jox ay jours fériés ci biir adduna bi président Macky Sall quitté Sénégal dem di seeti Poutine dëkk bu nekk en crise ñun ñu nekk en paix mu koy yalwaani mburu xam nga kooku yëpp na way xam nga kooku yëpp na kilifa diine yi di wël di régler ay problème ci adduna kon kooku na dem na dem na dem na dem na dem na dem na dem na dem na dem na dem. merci je vous remercie. merci. dina dem incha allah rabbi.